xam ne itam sëñ bi moom kenn mënu koo liggéeyee ci dëkk bi Touba Ca Kanam dañoo di jaayante ak sëñ bi ngir liggéey ci dëkk bi waaye kenn ku ko fi liggéeyee lu ko gën a liggéey ko ci alxuraan lile moo tax tubaa ci kanam taxaw temm ci njàngum alxuraanul karim gi nga xam ne mooy am ci dëkk bu sell bi di tubaa ci seenug nekkin ak bërëb yi nga xam ne ci la ñuy jàngee mu fas yéene liggéey ci dëkk bi lu toll ci téeméeri daara yoo xam ne Touba ci kanam moo koy financé liggéey ko ba mu àgg daara yooyu nag ñeenti lañ fas yéene liggéey ci atum 2021 bi ñu doon amal teg xeer wu njëkk wi ci gédé ci teewaayu kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk liggéeyub Touba ci kanam ak Serigne Xaban Mbacke moom Cheikh Mor Fadal mi nga xam ne moo fa teewaloon xalif général des Mourides commission commission scientifique bu Touba ca kanam leeral liggéey bi nga xamante ni moo jëm ci daara yi lee dañu bëgg incha allah rabi ren jii bëgg nañoo taxawal ñeenti daara waaye lim bi moom bëgg nañ mu ba téeméer ba nga xam ne Touba foo dëkk ci Touba boo génnee rek jàng ji bi wax sa kër sa kër sa kër way jur mu teg bëtam ci yow ngay jàng di wàcc te daara yooyu incha bu ko yàlla dogalee nit sax waxuma la sax fi di wala mën a jàng waaye mën faa dem ñeenti daara yi nga xam ne moom lañ bëgg a liggéey ci atum bi ci Touba Lansar lay doon ci guy sew daarul Minaan ak Guédé daara yi nag daara yi public lay doon njàng mi doo fay dara lépp Touba ca kanam moo koy jël en charge. dëkk bi jàngukaay yi xaw naa manqué te yitte ji yaatu na ci wàllu googu ñu xalaat ne nañ kon def li ñuy wax daaray tànneef bu ñu ko bëggee leeral rek ci ñëpp mën ko xam mooy daaray public jàng ñib lay doon daara joo xam ne ñi fi dañuy xëy si di gontu nag mooy dañ koy def euh, ñaari genn wàll mu daara bu nekk dana jël juróom fukki donga fukk ak ñaar fukk góor yu jigéen ñaar fukk góor ñaar fukk euh, donga yu jigéen ak yu góor bu ci nekk nag góor a jàngal ñii jigéen ñoo jàngal ñii ndax mu gën a dëppook ak charte bu noppee incha allah xam ne nañu ko bëgg tànn rek mooy euh, ubbi ko rek képp daal koo xam ne xëy na sa sens moo ci nekk ñu bañ ko tànn ñu tànn ko ci ak maandu maandu gu mat sëkk bu ko defee tamit ñu jàngale ñu tànn lañ tànn goo xam ne ku ca nekk da ngay am mustawa bi ñu yittewoo ci njàng mu set moo xam ne dana mel niñ ko bëggee. su weesoo projet bi nga xam ne moo jëm ci téeméeri daara yi nga xam ne Touba ci kanam bëgg na koo taxawal fii ci Touba Mbacké am na it yeneen programme yoo xam ne Touba ci kanam mi ngi koy wéyal muy jëm ci yeesal daara yi nga xam ne ñoom ñoo fi jot a nekk. bi mu njëkk a def mi ngi ko defoon daaw jéeg lu tolloon ci fanweeri daara ak juróom la ci defoon bu daaw bi it demoon na ba ci 71 daara ren jii it ñu naal. soixante daara yoo xam ne dañu ko bëgg a réfectionné incha allah waaye ñu fu mu toll rek di xalaat loo xam ne moo tax daara gën a jëm kanam ba daaw année boobu bi jàll daaw ci lañ def li ñuy wax formation sëriñ daara fi mu toll nii incha allah rabbi bu ren ji jël jàll ak jàmm li ñu bëgg sotti danañ formé 440 sëriñ daara incha allah. fii ci Guédé Serigne Fallou Niang mi nga xam ne ab jàngalekat bu mag la moom moo fi taxawaloon daara ji fas yéene ko liggéey waaye ginnaaw bi nag la ko jébbal Touba ca kanam ngir ñoom ñu fas yéene koo ndax koñ bi ko na xam ne ne lëndëm na lool guddi sama buntu kër gi doomu moo fi nekk fi si des lépp ay fii liñ jokkale la rek la ay làmp amu fi ñaari demande yooyu laa defoon foofu ba ma ko fa defee téewut sëriñ Abou Mbacke mii mat na ci seede daanaa ko woo guddi du ko woo bëccëg di ci waxtaan ak moom waxtu wu ne woo naa ko ba mujj sax danaa mujjoon am kersak di ko woote waaye waxtu wu ne danaa ko woo saa bu ma ko woowee mu ne ma fàttewuñ la ñu ngi ci incha allah rabbi danañu ñëw loolu nag mooy jotaay bi ñuy bëgg a xamal mbokk yi ne barab bi dañ koo fab jébbal ko waa Touba ca kanam ngir ñu eggal liggéey bi di saytu njàngale sëriñ Abdoul Ahad Mbacke Abibou ci turu Touba kanam mu santaan bu baax sëriñ Fallou Niang ci jëf gu rafet gi nga xam ne def na ko waaye dalal xelam ci ne daara ji Touba ca kanam dana wéyale liggéey bi ba liggéey ko noo xamante ni nu mucc ay lay doon. muy fekk ko waaye nga ko yëkkati ko teg seen ne leen leen àggal leen loolu mooy lu yàlla képp taal sëriñ Touba bu doon sa jëmm nga ci doon def kon doo ko defee kon sëñ Tuubaa ko la itte la loolu sa jëf ji firndeel na loolu ndax bu fekkoon gis sa bopp taxoon nga di ko def waaye nag teg li ñu yow nag sëñ Tuubaa ko yëpp sëñ ko teg seen loxo fas nañ ko yéenee defee nu kawe na ko bëggee woon ak na ko yéenee woon fas nañu yéene foo noo bëggoon mu mel ni fas nañu yéene mu mel ni fas nañu yéene itam bu noppee ñu taxaw ko jàngale ma tegu ci aw yoon ñu koy say loolu fas nañu ko yéene mi ngi ñuy sant mi ngi ñuy gërëm ci taxawaay yi ci taxawaay yii ndax sëñ Tuubaa bu ñu sanc dëkk bi Tuubaa liggéey rek ko warlu ak jàng ak jaamu yàlla kon nag bu kon nag bu nekkee sas woowu. ñu am jëwriñ ji man sëñ Mamadou Mountakha. yàlla na ko amiin. benn soxla du liggéey sëñ bi. amul benn du liggéey sëñ Touba rek. li ne ku dem ma dem ku demul ma dem joojee. li ma waxoon ne mu yàgg fi lool.